salaamaaleykum salaamaaleykum nuyooti naa leen man Kaja Bari lan ci seen émission li ci ginnaaw ki leen koy présenté di Kaja Bari ñëw fan géejawaay seet si benn champion benn mbër ñu naan ko Pape Thiam numéro 2 Pape Thiam maa ngi lay nuyu. waaw Kaja maa ngi lay fay ginnaaw ba ñu sant yàlla julli si yonante bi di sant waajur bu wér a wér di nuyu waa géejawaay di nuyu waa Kër Massar M3 Unité 15. di santar yalla bu baax baax baax julli ci yonent bi di sant sama serigne muy serigne fallu mbake mu serigne ateex ma ngoy sant di nuyu Baye Karim bu wër wër dala la dalal jàmm ka jaa jaajëf. pap Thiam damay ñew ci sa premier combat nga bëre ko 2015 yow ak kan la won waaw maa ngi bëre sama premier combat 2015 ma ak ben gaane bu naan occidental bu mbolo yeah. so deuxième combat sama deuxième combat komba ling maa la bu yof yalla defal ñu ci ndam sa troisième combat bëgg na xam tamit batay rek kan la sama troisième combat mango beure ko bëree euh, bu école de ligue ibrahim yaay mu mat 115 quinze kilos man matuma sa 100 kilos ma defal ko ay 1 minute nga nek euh, écurie Papa kan mais ñun duñuy faral di dégg écurie Papa kan lan mo waral loolu lan la manque de moyen la wala yeen dañ leen xamul wala waaw igri papa kan képp koo xam ne yaa ngi suivre lamb rek te bëgg ko xam nga ne am nga ay talent yu mën bëre yu fa nekk mun naa la maa fi gën a tuuti mais am ay champion boo fi ñëwee ku si mel ni marre de foofu la met gabar sing foofu la nekk ay atourement dëgg la nag yàlla mu ñuy dimbali ñu ngi am ay combat mais ni mu war a doxee dëgg dëgg dëgg dafa des dafa hamga xam nga kon ku ci melni grand Ibo day sonu ci ñun pour école bi am ay combat mais ñu ngi sant bu baax baax baax ndax sa buñu démé rek nañ wane suñu bop té buñu woné suñu bop yalla daf ñuy dimbalé waaw way fo taxaw na école de lik papa kan ñun la fofu ay ndana ñoo fi nekk. lan mo tax yeen seen équipe bi kenn du ko kon ça veut dire que yéen da ngeen a seen bir wala lan la. non ñun mom yalla dimbali nañu amuñu. xaj ak seen ñun ñëpp ñoo bokk nday ñoo bokk baay boo fa ñëwee ay jeunes rek nga fay fekk ay mag amu fa ñoo bokk nday ñoo bokk baay du ñu xuloo duñu xeex dañuy jàppandoo dóorandoo yàlla dimbali ñu saa bu ñu demee ñu am ndam weekend bi six combats lañ am six victoire géejawaay ba mu daj école de ligue rek moo ko amagul si bi kon nga xam ne loolu yombul loo xam ni yeneen yi ñëwagul. yalla mu ñuy dimbalé bu baax a baax baax école de Papa ka ñu ngi sant bu baax ñu ngi am ay combat yalla mo ngi leen di defal ndam ñun nak ñu ngi gis suñu bop bu baax baax. sa defet ci kan la joggé waaw sama defet amna ku ñu naan Papa Yada moma daan mu doon defet bo xamni dama koy nelawaale du ko yeewaale ndax bokku na si sama carrière defet bu mu gëna metti ndax nga mun nit ba ñëpp xam na ni yaa ko mun mu daan la loolu dafa metti mais nag bu ma si jugee am na lu mu yokk si man lu bëree bëri si wàllu encadrement si wàllu taxawaay ba si wàllu koñ bu ma dëkk sax am na lu mu si yokk ndax olof njaay nee na balaa ngaa xam xama da xaw laa rey te bu dëkkee suk jour du neex war nga xoolaat sa bopp kon boo amee safaan rek war nga ko sante yàlla xool lan moo la tax nga am safaan nga jëm koo bàyyi lay yokk ndam nga nekk si Ah, defet bobu nak bokku na ci lu mu ngeen metti mais ma ngi ci sante yalla bu baax bu mu ci jugee ba léegi ay ndam la ko tegle te day yo kan mo nek sahel moment biñ tollu ni ni ni mais période buñ toll ni man la c'est un comprendre samay morom rek la soxla soxla mo ma benn man instant bi waro nga ma fek ma nek ci préparation combat mais yalla lu mu tuddu jamu ci dara dom ci diggante mu am blessure samay encadrement na mo instant yi da nga am blessure bu jël combat bayil ba nga wër ngay soog jël combat ndax mëno am blessure jël combat amna ay adversaire yu bëri ñu ngi leen sét pour pap cham di leen demander mais dañuy dem ba si biir seen jël lo avance mais nak jël pap cham légui moy seen arrangement buñu ñu ba ci kanam day gëna a ci ñom da man xalé la damay mag màgg ragul mu fu mu jëm te bu dé bëre bi ma sha allah mu ngi fi bu dee fit bi mom waxalé wu mako katan gi mo ci def te dañ koy yok te xamna luñu luñu koy may xamnañ ko bu baax ñu ak suñuy garant ñu ñuy teg si code duñu won ni ñuy wutee doole te ñu ngi si te retouru pap cham tamit du yomb insha allah pap cham man xam nga luma bëgg nga taxaw ne ma mbeur mi la soxla wa xam nga mbeur dafa japp ben affaire bo nee diw la soxla rek ñu yaakaane yow pare nga ko bu yàgg te ñun duñ jobé non ñun ku ñu lamb boole rek pare nañ pour ñëpp wurna na bama ba ma bëreeg léegi yàlla seeti nañ site adversaire pour Pape cham bañ mais nak lima la wax rek kuma jëlul légui bo démé ba ci kanam bëgg jël dina met ci yow lool. Pape cham man dama bëgg xam six adversaire yo ñu la outal ñu bañ nga limal ma ci kenn ba ñaar. waaw ki naan amna ben gaane bu dëkk parcel ñu naan ko Moussa Dioum numéro 2 dox nañ sama combat ma ak mom ñaar yoon bañ awu Ndiasse dox nañ sama combat ma ak mom mais xawma nak ba xam Abou Ndiassé la yakko mais ci ménager bi dégg na ci waxam mu ne du ma jël Pape Thiam léegi ndax ndoxtu bëre bu nekk ci mom neeku sama mbeur loolu tamit dama koy sante yalla ñeneen ñi nak joru moy turu sen tur na leen bay ci bir wala ñuy yaakaar dama leen waajal te waajalu ma leen. Pape Thiam lan la mësa dund ci lamb lu ko met mu dem stade dund fa lo xamanteni tay mënu ko fàtte bu toge sax bu loolu ñëwee ci xolam wala ci xelam day bëgg. abandonné làmb lan la. waaw pour l'instant nii man dundaguma si làmb loo xam metti na ma dëgg yàlla mais am na loo xam ne tamit benn instant xaw naa ko dund si làmb méttiwu sax xam nga dama dajeeg benn mbër fekk ko koñam boobu soixante douze heures rombalax la ñu naan ko. bébé Diène ndax dama tok muy tok si télé yi si média bi di wax nan dan na pap cham dan na pap cham te fukk bébé Diène ma len mën ma fekk ko koñu mirina dan ko ba tok si xol bi juk ku dé ak sa bàmmeel billahi arbitre yeke sama loxo ma dem tek sama ngembu tok amna na xamni ñu ngi fi ci jotaay fekk nañ lool ndof na arbitre bi pap cham yi boko joxe victoire bi dina jël drapeau bi yóbbu ko géejawaay jël amul war ko mu ñew arbitre bi fekkaan na ma ne ma mbër ñu kaay bëre ñi ma àndal ñoo xeex ma leen bu leen xeex bu leen xuloo toog leen ma dem jàppaat ko daan ko léegi ñëw ceenawaat ñu bëre mu naan daf may prise jiitu ma ñëw arbitre yëkkati loxoom loolu bokk na si lu ma gën a métti deuxième fois ñu waxaan ma ne ma mbapat am na man leen doy na man dama gëm sama bopp te bañkat laa te am na loo xam nit bu ma ko dundee rek damay am lu ma métti nag dégg ah, na ko muy tok ci plateau bi nan Pape Thiam daan naa ko Pape Thiam dan na ko fukki Pape Thiam mo mun bebe jeen du ma mom sax na xol leneen ma xol leneen ba lam boole ñu wa loolu mom bokku na ci lo xamni daf muy touser mais nak ma ngi ci sante yalla ndax ma am ay nit yo xam duñ ma seetaan ben yoon bu ma defee loo xam wor mako def wala ma wax lo xam wor mako wax dinañ ma wo suru ko na mu mbeur du ni ni ak ni la bul doxale ni lol tamit dama koy dama len koy sante bu baax baax ndax xamna bu dul woon ñom dina xaw a met sama côté. Mhm. li la gën a neex ci làmb lan la. li ma gën a neex si làmb amaguma ko balaa maa am lu ma gën a neex si làmb dëgg dëgg dëgg ma doon roi des arènes yóbbu sama yaay màkk jëndool ko kër ndax kooku mooy kenn si man fekk defuma lool rek man amaguma lu ma neex si làmb mais maa ngi sant yàlla bu baax a baax si làmb ndax maa ngi ciy gis sam bopp maa ngi ciy gis sam bopp bu baax a baax a baax xale laa nag mënuma dara mais maa ngi sant yàlla bu baax ndax maa ak samay bien yoo xam ne mun naa ne la làmb moom ko moyagul pour l'instant nii te bëreeguma grand combat kon loolu rek sant la. Mm-hmm. à part làmb ji lan ngay liggéey. à part mun naa ne la làmb li gën a yàq sama métier bokkoon na si dama doon liggéey téer benn barak du jóge géejawaay dem benn barak di ko liggéey mu dem ba benn instant sama patron. heure bu ma war a bàyyi may dem entraîner heure boobu day jot ma dem tàggu ko mu aju na ma noonoo toogal ñëw lii ba pare après nga dem xam nga mu ñëwaat na ko père mu bëgg a dem entraînement xam nga mun ma ñoo muñal ba suba xam nga ma dem ba ni bëgg naa làmb te làmb daanaka day circuler sama deret xam nga ma ne ax ah, garaawul naa ko paas mais instant ni mun naa ne nekkuma si métier mais mel na nekk naa si métier ndax maa ngi bëre benn maa ngi dugg samay business yoo xam ne mu si bëggee faj sama soxla maa ngi siy faj sama soxla ndax maa ngi jaay ay genre jaay ndaw dama am sama mag boo xam ne seetaanuma benn yoon ñu koy wax xaarim goos nekk Paris daf may yónnee ay bagages yoo xam ne damay dem samay nit di leen ko jaay ku su mel ne ay portable wala ay cheveux naturels yi wala ay saak xam nga wala ay dàll yi dama koy yor xool samay jigéen yu baax yoo xam ne ñoo bokk secteur bi dem di len ko jaay ay eh, samay copain ñoo xam dañuy bëgg kool sax na ma mbeur kool la bëgg man len jour bi temps dina yor kool dem jaay len ko lool mom business boobu si laa nekk boole ak lamb écurie ya. Papa kan bobu nga nekk eh, yan relation nga am ak mbeur mbeur yi fa nekk ku ci melni marle mi nga xamantene tay moy mooy tête de file bi yan relation ngeen am. waaw mu naa la sa marle du tête de file ndax ñun suñu tête de file gabar sing la moy suñu grand moy suñu lepp ndax ba ñëpp xaddi woon bu ko bàyyi écrit papa kan moom moo taxaw ne dinaa gérer écrit papa kan maak samay rax ba tey jii lii fekkuñu si mare tamit waxi nopp la ñooy bokk fu ñuy yeewoo ñoo bokk gëb la bu ñuy toog man ak moom fii ñoo bokk nday ñoo bokk baay si kanam tuut dina la fekk incha allah xam nga mun naa la jàmm ak salaam lañ séek ak relation bu rafet ku si am combat day mel yow ya moom combat bi ma nëbb sama combat bi passé ñaari bolo gi tike ma genn dafa yëkkati 300000 té ko sama loxo ma dem joko promoteur loolu yombul ci digënté ñaari mbeur yo xam ñoo bokk secteur yëkkati ay bëwam fekk mu ba suñu kër na ma am mbeur ndam rek la soxla na ma ko indil kon koku kenn la ci man gabar mom ay conseil mom dafa boy sama nopp quoi ndax ñoo mom ay garant yu neex lan am naa fa samay copains yoo xam ne tamit duñ ma seetaan benn yoon bu ma amee combat dañ siy rey seen bopp ku su mel ne Atourma ak Arsenal kooku sama gaañ la sama lépp bu ma waroon a dem fii ba Joal wala feneen ak feneen jot bi mayu ma ko bu ma ko woowee téléphone na ko mbër fii ak fii laa bëgg nga demal ma ko muy Arsenal day li mu jàppoon lépp doo koy bàyyi dem defal ma ko te du ñoom nekk man suñu école wur na yàlla dama naan lan laa leen defal lan ndax bu ma amee combat ku si nekk li nga siy sonn ak yéene bi ngay am pour ma am ndam. té nekul lo xam man mako liggéey ak ñom ñom ñoo baax seen baax rek yéram a école lik papa kan ñu ngi ci jàmm ñu ngi ci salam ñu ngi am combat di bëré di daan da go man le weekend bi weekend bi six combat lañ ci am six victoire kon lool rek ci sante la bokk. pap jam amna soxna. non pap jam pour ressane amul soxna. mais am nga copine quand même. non duma ma ne na am naa du ma ne na mais période bi ñu toll nii ak fi may waxee yow ni aw ma ko dama viser làmb te lu ma gëm la kon am na yenn yoo xam ni waruma si mun a dugg ay nit ñoo xam ni xamewu ma si ay caaxaan wala xamewuñu ma si ay ñàkk fayda bu ma doxee ñu gis ma ànd ak jigéen du leen neex wala fu ñuy am na ñoo xam fu ñuy toogee di yàq sa der tamit benn instant doo ko fekk. moo tax instant mais Pape mos naa ko bàyyi naa ko amul fenn. non dafa dafa dafa dafa dafa fekk ni xamoo noo koy doxalee mais man damaa xam nu ma koy doxalee bu baax a baax a baax période bii ñu toll nii de Pape Thiam waxi jigéen da koo teg fële Pape Thiam wul wu lul entraîné tëdd nelaw yëtu di ñu si kaw. sa copine bi dalay lay bàyyi de. na ma bàyyi bu fekkee am naa ko na ma na ma baax. xanaa ay wax day jeex. mais am nga doom. man allahu akbar <laughs> wante bu ma jege woon ma laaw doom non aw ma doom moom yàlla tere <laughs> non non aw ma doom doom. mais bu ne yàlla tere danga naan pour la moment ama doom moment nii moom aw ma doom mais bu ma demee ba takk soxna moom ñaan naa yàlla am moom doom mais instant ni aw ma doom moom. Pape Thiam am na leneen lu ma bëgg mooy nga jàkkaarloog euh, ñi lay seetaan. nga wax promoteur yi nga wax ak ñom parce que yow yaa ngi ci yoon te sa palmarès baax na benn défaite nga am six combat sept combat six victoire benn défaite kon ba promoteur yi dañ la war a tëgg nga bëre dama bëgg nga téye micro bi wax ak ñoom ñu xam na yow li ngay wax dalaa ñor parce que da nga nekk ci yoon te da nga war a dem. waaw promoteur moom xam nañ pap bu baax a baax a baax ndax gars mun naa ne la Berkut Demba Ndiaye rek laa mujjee ak Fallou Ndiaye. mu nar dugal si dernière journée bi man ko mbër man dama blessé mais instant maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax wér naa maa ngi na bu baax a baax a baax nekk ak samay mbokk nekkul Fallou Ndiaye nekkul keneen ak keneen keneen ku bëgg combat Pape Thiam numéro 2 école de ligue Papa Kane pare na pour mbër yëpp waa géejawaay rek laa fi bàyyi ndax ñoo ma jaaxal ku dul géejawaay pare naa pour bëreeg yow man yàlla daf ma dimbali sax ay xaritu mbër yi xam nga ko am. man dal bo dëkkee géejawaay doon mbeur ñu bok milieu bi dinañ kaf dinañ ré mais à part géejawaay keneen ku ne pap cham pap cham paré na pour yow ya. waaw ba tey neex na wax nga sa soxla dégg nañ la mais bëggoon naa tamit ba tey pap cham nga ne ma mbeur bi la soxla parce que loolu tamit day neexal lamb waaw xam nga yow li nga wax dëgg la ndax man bu ma xëyoon suba ne mbeur mi la soxla rek mbeur muna mën na dem sa dugal ma si bitel dima paré pare fekk man wu moko légui na deug bal bi rek tok di len pap jam pare na pour ñep man néegu ma fi di tamo na jox leen ma fi mag lay bañ mag lay bañ nan ma jox xalé bu am doole kon man pare kon man ñu fayet man ak mom man lool la na ma ci mbëri mais amul mbeur bo xamni sama ne geuri ño ñoo kotu geuri li nga nga def lo xamni ne moko ci lamb man dama toj man dama dugg adresse ngor mu metti lol amul mbeur mu yewoo geey way ku mun dem adresse ngor jël fa mu metti lol ma ñëw xuus sama premier dugg adresse ngor dama ñëw jël dem sama yoon da fofu ay ndaanaanu bërekat ñoo fa nekk mu ñëwaat jëlaat ba léegi ni bo duggee adresse ngor dañ naan la njool mi ñëw pap cham Thiam ñëw na moko def ci man man damay génn man nekkuma ay combat arène rek may bëre fo xalaat dama fay dem di bëre samay appel sama kóol mo ma la ko joxoon appel da koy gis ay séeréer ñomay may naan ma albi amna lamb albi amna lamb mo toge na bu ma rek jappal ni gant mo ma fi bax mais sama gaay yi ma togal ñom xam nañu bu baaxa baaxa baax man lamb dama ko bëgg sama life fo japp ni fay genn da fay genn dem rañi di ñew togaat sama wa ko damay dem beuri sax ñoo ñu jeex ba si gis ay nak wala jeex ba si na eh seen mbeur mi rek mo defati espola mu ngi ñun ma lan mo tax boy beuri di man len man xaw ndax yorewu ñu ma loolu man damay dem indi ngeen gisal seen bopp. dama dégg sànq nga ne mbëru géeja waaye sekkoog ñoom leen na kon ça veut dire que ne yow à part sa waa soxla ci beneen mbër. non dema ne la kurul mbëru géeja waay sekku ma ak yow dara man waaw géeja géeja waay moo ma ñor man deretu géeja mooy circuler sama yaram kon bu ma sekkutoog mbëru géeja waay dara kon juru may nekk géeja ndax lu ma am fii laa koy indi. man mbëri géejawaay jàmm ak salaam laa sekk ak ñoom am na ñu si bëri bu ñu amee combat dañ may contact alors caama nu ma waaw man dama bëgg nga ñëw jàpp si combat bi dama bëgg ñëw jàpp si contact yi ma bàyyi seen ikiri dem seen ikiri jàppale leen kon ñooñu mënu maa am ñoom xaaj ak seen jàmm ak salaam laa sekk ak ñoom dama ne lu dul waa géejawaay nga nekk beneen secteur di bëre Pape Thiam pare na pour bëre ak man aw ma xarit feneen xaritu mbër feneen aw ma ko man fii am xaritu mbër muy géejawaay sama secteur fii ma dëkk Pape Thiam sànq dégg naa nga wax ci Kër Massar M3 foofu sama yaay moo fay yeewoo sama yaay bu ma sukk jur moo fa yeewoo mun naa la bu ma amee combat bu ñu nee combat bi des na deux jours wala trois jours falaay dem takkee ngemb li jaar géejawaay soog a dem isaat samay rakk tamit fa lañ nekk mais man géejawaay laa juddoo fii laa yoroo fii laa màggee sama kër tantan yi nii fii laa nekk. kër gi nga am fekk ni sama jigéen bu baax si man la mu naan la añi géejawaay ku mu amee combat añi gaal bi lañ koy toogee te sama kër tantan yi nii sama kër bàjjan na ngi nii ñoo taxaloo mais kii dafa borom kër gi daa doon kenn si man muy faama Gueye iya kooku day yëkkati alalam di ko def si man regroupement mu yëkkati iya jafe mais fe sama yaay moo fa am titre foncier samay rakk nekk fa samay mag nekk fa mais man géejawaay laa xam géejawaay laa màggee fi laa defee lépp. kon nekkul damay tëb tëb rek dem Kër masaar noonu Kër Massar nag am naa fa ay nit ñoo xam ne ma fa ñëwee dan dalal dan may dalal bu baax a baax dañuy am combat xam nga jëlay oto ñu déparé foofu dem ñu doon samay gaañ yu baax ñoo xam ni mooy loolu sama yaay fa lay yeewoo xam nga samay mag nekk fa samay rakk nekk fa par weekend bu ma deful dara ni dama fay dem fanaan fa toog waxtaan ak waa gaale bu jëree ñëw ñibbisi waat ma ñëw ñibbisi jàpp sama ñaambur mais lépp daal fii la fii mooy baas bi. géejawaay fii mooy base bi mooy lépp waaw. seen émission la woon li ci ginnaaw euh, Pape Thiam looy tàggatoo. waaw di santaat yàlla bu wér di julliwaat si yonent bi di leen sant yéen bu baax baax a baax ndaxte li yombul doon jeune di def benn émission di wër xale yi jeunes yi nekk ci banlieue bi loolu dafa neex. dañ leen koy dañ ci rafetlu bu baax baax baax di leen ñaanal li ngeen bëgg seen émission bi ak seen télé bi yéen a ko xam yàlla leen ko suñu borom defal ndaxte Amet sama gaañ la sama lépp la moom ndax moom lu may avancé loolu rek si loolu lay dox ndax ba moo ko waxee sax du ma la nëbb tey sama mag bu ma boo ndey ak baay day génn wala ngeen da ngeen taw mais Amet ba ma wooyee wax ma nee naa ko cooju ba dama koy bàyyi si biir dem mu doonoon suñu dëkk ngaay mais seen émission bi joxe naa sama kàddu ba pare munuma ñàkk bañ a teewe ma ne naa paas lee lii moom coo jubul ñu rey ko mu dee ñu seeti leneen nuyu nag Baye faali sama gaay yi ma toog xam ne dañuy sonn si man bu baax xam ay Bibo Kara ñooñu samay nit lan barki Serigne Bamba ay Serigne ñooñu yàlla ma booleeg ñoom su mel sang tamit kooku sama lépp la sama genwàll Arsenal dafa am gëy sama yaay ndey jiite nga koy sant bu baax aw fayam di sant sama benn copain boo xam ne moom bu déggee ni Pape Thiam am na combat rek du nelaw du yandoo muy Ndiaye Ndiaye Sall kooku sama lépp la mun naa ne la sama avancement si làmb moo ko yor man mu ma jàddee yoon sax moom du jàddu yoon kooku aw ma fayam ak moo Ndiaye xam nga ak ñoom ah, usmaan Sène ay Mamadou Libé ay Marle ay Tidiane xam nga ay Lamine Diop ñooñu samay gaañ lan di sant samay jabar yoo xam ne samay jabar jabaru mag lan ku su mel ne Amina kooku moom sama gaañ la xam nga ak sama benn grand boo xam ne kooku du nekkul sama mag sama papa laa koy wax ndax sama papa bu mu génnee àdduna ba léegi yaa na ko yàlla yërëm te xaar ko àjjana moom mooy si sama papa fii nam ma dara lu ma bëgg moom moo koy def moo ko taxal woon taxaw léegi na wa gaynde deux cent mille laa soxla dama am problème ma bu subaa demal nga jëli ko naa la ko dugalal kooku sama lépp la. dal bu rafet bu ñëk a ben ken kenn du ko sol mu ne xaar mu yone ko sama rax waxi nopp kon ko aw ma fayam dama koy baye ak yalla khadim geey yalla fayal mako bu baax baax a baax di wax yaay lo ñaan doyul inshallah rabbi li nga namu sa doom muy champion di ko am di sant ñepp di gërëm ñepp bu ma limee rek damay joom duma joom dama dul matal waaw di sant tamit sama fii ñu ni muy borom mayga bi Sankare kooku bu dëgëree cere meew bu metti nii mu dëgër damay ñëw si moom na ko sàng rek gaan instant yi mbër mooy loolu poche bi dafa dëgër mu defar reer bi joxo ma reer kon kooku aw ma fayam faama gëy tamit dama koy bàyyi yàlla yàlla fayal ma ko ak ala baaba xam nga sama caatu yaay bintu gëy ay mama nday yaasin ñooñu samay fiis lañ dañoo bëgg Pape Thiam te yàlla tax maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp leen wax kontaan naa si yéen bu baax a baax yal na leen yàlla defal jàmm li ngeen bëgg seen émission bi yéen a ko xam yal na leen ko suñu borom defal di sant nag sëñ fallu mbake mu sëñ Atex mbake Bala pare xam naa ni nga ko seetaan bu baax dama nga gën a yokk ñaani jox ma kun bi waaw moo doon champion ndax xam naa ne boo ko defee rek man dinaa doon champion Baye Karim Mbacke Fallou tamit maa ngi koy ziar ak sama waa daayira bi maa ngi leen ziar bu baax a baax di sant yàlla bu wér wér di leen wax sa kaw sa kanam. incha allah kontaan naa si yéen baax a baax jaajëf. ni ma leen ko waxee woon rek noonu laa ko defee man ka jaabaari xale bu coupable bi capable bi consommable nag sans danger maa ñëwaat fii Géejawaay doon leen présenté lan seen émission lu ci ginnaaw. doon ci dalal kan champion daanaan ñu naan ko Pape Thiam numéro 2 maa ngi leen di santate rek di leen gërëmati di gërëm nag awa borom États-Unis waaw ba moo ma jox lii naturel na ma këppool ba muy moom Fassar yónnee ma borom Espagne Yen dama len di bàyyi ak yalla suñu borom ndax yeen du ngeen maytu seeni non. ndax ken bañu len ci adina wa man ka jaadu maa leen bëgg yeen may wër ma di len wër ba fajar ma de journée continue di sant nak sama jëkkër Moussa Sarr ndax boo ma bàyyiwul woon du ñëw na la yalla defal jamm gërëm na ñëpp sant ñëpp. yeen ci seen rubrique doxantu ak kan pap cham ñu dox waaw acca ñu dox. papa mm-hmm. euh, tey ñu ñëw fekk la fii ci géejawaay fekk la ci grand place bi nga toog ñii ñan la ci yow. waaw ñii moom mun naan la samay papa fi samay magañ fii bu pap demul enterrement mun naan la boo ñëwee fii nga koy fekk mu toog maa ngi laa maa ngi leen maa ngi toog di faw ñoom di bëlëg ñu may conseiller di ma wax nii ak nii ak nii ngay doxalee. kii ma dendal ni sama wet xam sama grand frère la muy Moussa ku baax si man di ma jox ay conseil am di yëkkati alalam di ko def si man bu ma sax bu ko waxul sax bu ko yëgee si nit ñi day am lu ko doo si ñoom xam nga ma am lu ma jàllal si ñoom xam nga kii mooy musa sama grand bu baax si man la ma koy bàyyi kàddu bi rek mu am lu mu si sànni lu ndaw. sëñ bi maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. Euh, tey dañu ñëwoon numéro 2. mais biñ ñëwee fii lañ ko fekk mu toog ak yéen ci grand place bi di la laaj sa digganteeg Pape Thiam ak Pape nan la nekkee ci koñ bi. Pape Thiam dafa nekk rakk bu nga xamante ne rakk bu baax la dafa nekk rakk bu nga xamante ne aussi tamit rakk bu yaru la rakk bu gëm boppam la foog fi ay mag rek fi nekk mu ñëw ànd ak ñun ñu koy conseillé ci làmb ji ba muy commencé nekk xale ba léegi gëm li muy def heure bu demul fenn fii lay toog ñoo ngi koy ñaanal yàlla fi mu teg tànkam bu ko bàyyiwul yàlla ko fa yàlla eggale fi mu bëri mag egg xale bu am jom la xale bu nangoo nangoo la xale bu gëm boppam la te bëgg na tamit waa quartier bi moo tax ñun souvent dañuy bëgg su amee combat waa quartier bi yëpp mobilisé pour jàppale ko moo ay magam yi fi nekk ñoom Marley ak waa koñ lu di ko ñaanal di ko di ñaax ci entraînement yi te yàlla na dem ba dégg daale ba nekk ci roi des arènes fi ñoom Balla Gaye toll yàlla na dem ba dépassé ko sax waaw ci liggéeyu ndeyam ak ay magam yu baax yi daal ñoo lay jox sant sëñ Fall bu baax a baax a baax euh, maa ngi lay laaj tey euh, ci Pape Thiam tey dañu ñëwoon seet ko euh, di la laaj Pape nan la nekkee ci koñ bi ak Pape dañ dañu ñëw tey fekk ko fii ci yéen. waaw soxna si ñu ngi leen nuyu ñu leen di sant seen télé bi en plus lii moom rafet na nag dina tax koo xam si ni xamutoon Pape Thiam mën na ko xam avant tout ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax a baax leen gërëm yàlla yàlla fa ngeen télé yi àgg yàlla na seen télé bi àgg si barke sëñ boo ñu si laajee nañ sawar quoi ndaxte dafa nekk koo xam ne si xale bu baax xale bu am respect si nit man mu ngi dama ko damaa moo sax dama koy fekk sama tax sama kanam moom man la nga yëpp si ko ñu nag waaw sama xarit la sama rakk la sama lépp la na góor góorlu fu mu teg tànkam na ko fa teg na am respect na fonk ay waajuram surtout nay teel a tëdd moytu eh. taxawaalu surtout mbër loola laaj fonk say waajur di teel a tëdd moytu taxawaal sa fonk entraînement fonk entraînement man loolu la ma neexee ndax parce que lu groupe bi lu fu mu neex neex neex da ko fekk dama entraîné waaw kooku moom xam naa ko si moom baax baax baax baax ñu koy ñaanal yàlla nag fu ñuy affect fu ñuy dégg mbëri mag ñi yàlla nañ ko fa déglu si barke Sëñ Fallu c'est am na yàqin bu baax a baax na baax a baax dina ko si déglu yéen nag sant leen bu baax a baax a baax a baax baax yal na yàlla jàppale jàppale mboolum julli si barke Sëñ Fallu jërë ngeen kontaan nañ la bu baax a baax a baax. mooy loolu gaan samay copain lañ samay lépp lañ. yàlla moo def xam nga nubok bok secteur bi waaw séeréem don sama seri sala kooku sama seri bop la lami jóoba ni chocolat ki xam sama gaañ la fils moy lolu mom bay baay faal la gaañ xam rek yalla moñu ñu boole quoi kii moom lamb lamb ngi ni ki sama lamb la quoi kii mom sama gaañ la ñu koy wax atourma xam nga ki sama fils ngi ni serigne moy lolu waaw yow yaa ma gën a xam gaa ngi ñoo war a émission bi sang Mbacke ngi nii kii sang Mbacke la quoi Mbacke Mbacke la mais boo ko gisee doo ko teg Mbacke Mbacke quoi dof nga koy teg <laughs> mooy sang Mbacke xam mooy loolu. oui sama fils a ngi ne moo yor ataaya bi quoi tam mooy booy borom lewal bu neex bi bi boo Kara wa ngi nii taaliba Cheikh Mourou Kara la moom mooy loolu <laughs> di doon sama waay quoi moom mooy loolu. kii moom dambay la sama booy la fu ma ko yónnee day dem moom moom mooy loolu day dem yónneen kii sama sama doom nday ak nii yi mooy champion Arsenal doon sama gaañ doon sama lépp di ma teg si kot billaahi yi moom awuma seen fay quoi Medzo Kaka waaw séeri Kendara my lover <laughs> muy nii quoi moom samay gaañ lan xam nga ay ñoo waral lii yëpp ku si mel ni Ibba Cheikh Thiam Boy Thiam jegan ma ngi len ziar bu baax gis na li ngeen di ci man mais inshallah bu nexe yalla gëm nan di ngeen am champion ndax luma ma la dama koy walé du ko tedalé te lu koy may xamna ko te dinañ ko fi indi bu soobee yalla ya kontan na nak ci yeen bu baax baax sama jigen be nak bu ma soyoon ngeen jël ko ci émission bi Fama Gueye jantal gannaaw gi ni mom day iya yëkëti xaar di son ci man quoi damay guddilal dama bëccëgal sama jigen a ni sank li mo la wax rek mu amé combat regroupement Guédiawaye kërëm bi lañ koy toggé mu yëkëti iya xaalisam diko def ci man xama di sonni ci man ta yalla tax ta amul dara dara lo xam ne koy fayé sama jigéen ñi nii sama lëf a ni gar mo baax rek ndax nit mom su baaxé li yëm moko may bop su bono amana li du am xanaa mom mo baax di xalé bu baax di xalé bu jullité di xalé bo xam ko déggal ay magam la man mii magam laa xan su ma nee ko paate bàyyil mu bàyyi su ma nee ko defal mu def su bonoon su ko teree su ma ko nee paate defal lii mu def la ko neex waa nag lu ma ko tere mu bàyyi lu ma ko sant mu def moom mi moo am jërëjëf moo am jaajëf te moo yaru te yàlla nañ yàlla may yàgg yàlla may ko tamit du li ma ko yéene man maa ko maa ko xam yàlla na ma ko yàlla defal amiin amiin waaw ndax bu baax la xale bu yaru la xale bu dégg ndigal la te nit ki moom soo ko yëgee mu yegla soo ko yëgu te mu toog di la seetaan moom mii moo baax wóor na yàlla xale bu baax champion baax ne Marley sama doom sama doom ndey bi ko wax dëgg kii moom gannaaw mooy li ma la wax sànq rek kii moom sama doom nday la sama lépp la yàlla moo ñu moo ñu boole ko waa xam nga kon li ma wax sànq si émission bi rek waxoon naa leen boo leen toogee si kanam tuuti dina leen fekk man euh, ma champion man kii mooy sama champion ginnaaw yàlla mu ma bëggee làmb wala mu mun a cabaxal moom moo ko def si man mu doon sama lépp damay am combat mu jàppoon lépp da koy bàyyi yëkkati xaalis bu bëri jox ma ba pare jëndal ma ay bee na booy dëkk tund bu yëpp nangeen dem xam nga supporter yi Pape Thiam dooleel ko yàlla defal ko ndam moo koy sant bu baax di ko gërëm di ko ne ko xam nga li nga bëgg sa carrière moom moo xam yaa na ko suñu borom defal sama waay la sama lépp la ma bàyyi ko kàddu bi mu sànni si tuuti. waaw ñu leen di nuyu baax di leen siyaare bu baax xam nga di leen dalal jàmm ko waa di wax ne Pape Thiam xam rek waaw booy bu am yar la suñu rakk la tamit benn instant lépp loo xamante ni lu mu nekk la rek dañ ci dugg ba mu jeex ndax li mu wax rek moo si nekk ñoo doon ànd xam nga di mbabatandoo di defandoo lépp su ma bindoo luur mu bindu lese kon bu ñëwee ba ci bi dañuy sant suñu borom bu baax a baax di ko ñaanal tamit mu gën a jëm si kanam fi mu teg tànkam bu ko mos a teg comme li ma koy wax rek nee naa ko mu affaire kenn moom ko mm-hmm. ñun ñëpp a si bokk yem mais ni mu gëmee boppam na ko gën a continuer rek incha allahu rabbi lépp loo xamante ne mi ngi koy yóbbu dina ko jot parce que yaayam ñaanal na ko xam ay magam ñaanal nan ko ñi mu bokkal gërëm nan ko kon loolu sant la tey bu fekkonte ne xamuñu si moom dara duñ mën a wax si moom lenn mais daal yàlla na ko suñu borom jàppale lépp loo xamante ne mi ko koy yóotu rek na ko suñu borom matale di leen sant xam nga di bu baax a baax yéen tamit gaan kontaan nan nag bu wér a wér billaahi yéen moom gaan amuñu fen kii tamit sama yaaju baax la sama yaay Aysata du dëkkee di ma ñaanal moom daf may ñaanal ma am combat ma ñàkk am combat daf may ñaanal bu baax a baax a baax sonn si man xale bu baax la xam ay yaayam xam moroomu yaayam xam ay magam xale bu baax du xeex du xeex du xuloo du ñàkk du lite du du bàyyi benn waxtu nag dañ koy ñaanal rek yal ko yàlla may gudd fan li may seetlu ci combat bi ci làmb ji yal ko yàlla may yal na jël ruwaax amiin